Imaam Mamadou Diop euh, juddoo fii ci Diogo fekk baax ci jogo di euh, notable ci dëkk bi di jiite association bu ñuy wax association pour le développement intègre de Diogo et environ. Diogo dañu ko voté leen voté loon gaaru boo xam ne ñi ko doon voté dañu ko voté Diogo daal di koy gañe ci kartanu yàlla gañeween bu leer fekk GCO. bi nga xam ni mooy exploité mine fii ci goxu jogo ci commune Darou Khoudoss diggoon commune bi ni da koy tabaxal gaaru ceer ñu voté ko jogo daal di koy gañe lu tax jogo gañe ko parce que jogo fi mu nekkee buñ ko fa tabaxul askan wi dañuy sonn ndax boo wàccee daaru ndóoy cal daaru faal mbaya kawsara daaru njaay ba ba ngay egg jogo ak dëkk yi ci ginnaaw buñ fi wàccee guddi fekk gaaru ceer bu nekk foofu sécurité dana am parce que fii dañ fi rey ay nit ndax kiñ fi mujj a rey ñi ko rey ñu ngi ci kaso bi te ay xale yu ndaw loo xale yu ndaw lañu yoo xam ne fii la ñu euh, dëkk. loolu nag bañ ko voté mi ngi nekkoon la 14 sixième mois 2011 ci bi fii yal na ko yàlla yërëm Ndiaga Matar nekkoon ak su préfet bu ñuy wax Fallou Fall. Euh, fanweeri conseil ñoo voté leen jogo ak juróom-benn wax ni fa la gën a baaxee. juróomi conseil ñoo voté ne dañu bëgg mu nekk ca dëkk bu ñuy wax Daaru Ndooy di ay mbokk ak jogo ndax tund wi benn bopp la loolu nag bi mu amee ah wax dëgg yàlla maire bi nga xam ne moo fi nekkoon di moo fi nekk ba léegi di maire Magor kan dafa defaat beneen délibération ci kaw délibération boobu ca 2018 bi nga xamee ni def na ko lijjanti na ñoo ñoo politiciens yi ak ñennat ñi nga xam ni ñoo dëkk ci dëkk bi délibéré ci kaw délibération te loolu benn état la ñu yor te loolu yoon dafa koy tere loolu moo tax bi ñu tàmbalee ci ay pexe yoo xam ne ay nit ñu nekk ci GCO dañ cee dugal seen loxo ak ñu nekk ci dëkk bi dëkk bi ak autorité yi di ñu wax ay idées yoo xam ne ñun xam nañ ni mënuñu noo nax ba tàmbali di tabax garage boobu ba di ci sore biñ ko njëkkee tabax some woon nañu ki nga xam ne moom la ñu gis ne moo yore liggéey bi ñu koy wax Mamadou mbay di doomu gox bi ñu gën koo miin ci gaucher biñ ko sommee ñu taxawal liggéey bi ba ci kanam ñu tàmbaliwaat ko parce que tam pays de droit la ñu nekk comme ñoom GCO ñoom ñoo ñuy jàppale dama yaakaar ni waruñ ñu jox loo xam ne dañ ci tojante bopp wala dañ ciy xuloo wala dañ ci xeexoo kon gaaru ceeru jogo bàyyi ji bi Jóob yal na ko yàlla dolli ay leerte dolli ko yërmande bi mu génnee àdduna yàggul leetar yi mu bindoon maire ak sous-préfet bi fi nekkoon mi ngi fi te mooy mémorandum bii ñuy liir loolu la bàyyi ji bi bindoon ci ne gaaru ceer bi ñu def ko jóguma tëgg mooy sécurité ci dëkk bi te itam comme voté nañ ko gagné nañ ko loolu nañ ko fi def waaye d'accordul ñu def ko feneen gannaawam nag la pexe yi am lu ñu ragaloon a def nit ñi commencé ñeme ba egsi ci fii ak ay xale yu ndaw yoo xam ne dañuy wax ci baatu dëkk bi loo xam ne waa dëkk bi wax loowuñu leen ko ñooñu ñekk ñu ngi wax seen kilifa ne leen nañu waxtaan ak seeni doom ñu nekk benn njaboot moo gën ñuy def nu nga xam ne la ñuy def du bokk ak li nit ñi bëgg muy jur ay naqadi naqadi ak yeneen ak yeneen kon lii mooy njàmbat mi nga xam ne moo tax waa Jogo jóg góor jigéen mag ak ndaw ak dëkk ndax fii nu taxaw tey mooy Kawsara Daaru Njaay Mbaya ba ci Daaru Fall am na ñu bari ñu wax ne garage yi baaxul foofu ndax bu ñu ko tabaxee gaar foofu waa Daaru Fall dañuy wàcc di jëlaat oto te fii gox la boo xam dafa am insécurité nee naa leen ki ñu fi mujj rey ko dañoo rey de mbokkam tëral jabaram ci kanamam añ ko ñu ngi ci prison bi te génn guñu ci insécurité boobu nag ñoo ngi interpeller le président chef de chef de l'État président Macky Sall ne la fii ci Diogo ñu ngi lay wax nga wax ak sa autorité yi ñu jàppale askan wi parce que li ñuy def arrangé wu leen ñu ngi wax ñi nga xam ne ñooñu yërif yaa yu ñuy def nag mooy ñoo lay ñoo la jox li tax nga man fee ne maanaam ñun suñuy cotisation ci lañ lay faye salaire kon fa nga toog ñun nga fa toogal am na enquête yoo xam ne buñ la ko indilee war nga yaatal ba xam lii lan la ñu ngi nuyu ñëpp di sargal ñëpp. man mère Fatou Thiaw dëkk Jogo maa leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku ne sa tur ak di leen balaaq di leen balaaq li nu naqari tey li nu fi dagale ñun ñëpp kenn ku ne xam na ko ndax diggante Daaru Ndooy ak Jogo sore na lool. ñu bëgg a jël gaz bi sànni ko Daaru Ndooy te jogo li mboot daa bari fii ba xonq yooyu ba lompul lépp ci jogo la ku bëgg a wàcce fii bëgg ni da ngay dox ba jogo nga door a ñëw ñëw wayu yi mën naan laa katar te bëgg dem Daaru Ndooy képp la fi wayu yi fii bëgg dem maa la fi yàpp nit tëddee ko fii kon nag léegi bu ñu fii jigéen di jóge ci àll ba di laa rey te daa bari ba jogo baana baana yi bu guddee fii lañ leen di sànni ñu sànni la dox ba jogo ñu gara ñu ci yoon wi rey la bu boobaa yow ay ñàkk sa bakkan te bu ñu la ku ñu xas la yow yow ku lii nu soxla nag sunu bakkan bi moo am na laaj bañu nu ko ci dee ñu ko jox joxuñu ko ci dañu koy xeex ba ñeer wasalaam. Je m'appelle Biran Diop je suis natif de ce village donc euh, je vais essayer de vous lire ce mémorandum d'alerte et d'information nous population de Dioukouk de Keur Mateug et celle des villages environnants nous et tenons informés de l'injustice notoire que nous Kër Mateugue, voté par le conseil rural de Dar Khoudos sous le magistère de Ndiagamatar, avec l'approbation de M. Falloufal, sous-préfet d'alors, est en train d'être constitué injustement à Darou, Ndoy, par le maire magore kan avec l'appui financier de GCO. Pour rappel, le conseil rural de l'époque avait délibéré avec une majorité de 36 conseillers pour que cette infrastructure soit implantée à Diogo Vu sa position géographique, Tandis que cinq conseillers ont voté contre le 14-16-2011. Ça sent l'importance de cette infracture sur le plan sécuritaire et économique. Nous vous demandons, monsieur, de nous restituer la gare routière dûment acquise depuis fort longtemps. Par conséquent, nu nous demandons aux responsables de la de GCO, e particulièrement à monsieur le directeur des affaires sociales, l'arrêt immédiat de la construction de cette infrastructure à Darou Ndoye. D'où la colère des populations. Et pour éviter toutes sortes de déflagrations populaires émanant de celle-ci, nous vous demandons d'agir dans l'immédiat que notre gare routière nous soit restituée. Dans l'attente d'une suite favorable à notre requête, veuillez agréer, monsieur l'expression de nos sentiments les plus euh, distingués.